waa sama gars yi bàyyee nañ ci jàmm namm naa leen de nam naa leen sama gars yi euh, xam naa di daal ay dessert moom du seen force sax waaye bi dama leen koy bëmax brownies yi o noix par force dama leen koy bëmax moom donc mi ngoog ingrédients yaa ngi tege recette bu gaaw bu yomb bëriwul chichi bëriwul chacha maa la ko wax beurre chocolat nen poudre de cacao sucre noix farine essence vanille moom ngay soxla donc li ñuy njëkk def mooy euh, dambat sunu chocolat tablette de chocolat oui dambat ko 200 euh, grammes daal di jël lu toll ci 100 grammes beurre euh, dugal ko ci micro-ondes bi mu seey tey moom damay def damay damay def à la tayel bain marie wu ma dama koy dóor camp ci micro-ondes bi mu seey ñu daal di jàll ci deuxième étape bi donc deuxième partie bi sucre cinquante grammes. trois œufs entiers euh, lu toll ci cent cinquante grammes farine tamit moom laay utiliser donc dañuy mixer euh, suukar bi euh, ak nen bi ba mu muusa ba volume bi doublé parce que dafa lay permettre nga am ay brownie yoo xamante ni du aplatiru dafay dafay jug daal donc essence vanille ñëw ci biir ñu tamiser tamiser sunu farine lu toll ci cent cinquante grammes poudre de cacao lu toll ci deux cuillerées à soupe donc mi ngoog léegi nag ñu daal di euh, mélanger euh, ñaari euh, préparation yi nga xam ni moom la ñu am fekk na tombé na chocolat bi seey ak bër bi ñu génnee ko ci micro-ondes bi donc yëngal mélanger ko ba nga xamante ni da ngay am aspect wu chocolat bu seey rek ak beurre maa la ko wax. donc mi léegi li ciy des mooy nga jël ñaari mélange yi xaar tuuti nag euh, chocolat bi sey parce que chocolat bi ak euh, bër bi su tàngee nga jël euh, beneen mélange bi sotti ko ci dafay tax nen yi ñor ba pare dafay dafay wàccee pâte bi donc mi ngoog le temps que ñu mélanger chocolat bi ak bër bi léegi dañuy jël ñaari mélange yi boole leen brownies lay doon de tey dañuy dem ba côté États-Unis ani waa Atlanta waa New York mi waa Brooklyn ak waa Washington <laughs> ah sama tournée américain bi dama koy préparé yii damay dem seeti ñoom Tata Marietou ñoom Bilo ah Yande Diouf sama gars yaa ngi Amérique di ana Aïda Aïda la ni ngook Euh, su may dem sama tournée américain bi damay yóbbaale sama sama appareil di filmer di leen wan sama gars yi fii lépp fii lay xewee ci YouTube bi Instagram euh, WhatsApp euh, Facebook fële lépp di xewe donc bi ngoog sama gaa yi pour les brownies nga daal di jël say noix nag man j'aime bien su may lekk sama brownies mu am effet croustillant ku xam Alphie nag cuisine xam ko ci Alphie cuisine Alphie croustillant donc jëlal sa noix noisette wala sa ay amande nga daal di koy tojat def ko ci brownies bi donc daf lay permettre soo koy lekk ngay daj karaj lu neex loolu mu mélangé wu ak chocolat bi euh, donc dinañ ci dinañ ci day gën a day gën a neex donc bu mélange bi uniformé ngoog en moment bi da lay rek jox envie nga jël sa benn kaasu verine daal ci sotti mélange bi lekk ko ni cru mais farine bi ñorul foog ñu togg ko euh, préchauffé four bi à 180 degrés jël benn moule carré chemisier ak papier sulfurisé pour mu démoulage bi facile nga daal di jël sa mélange nag sotti ko ci il nous faut euh, quinze jàpp vingt cinq minutes ça dépend ci sa grandeur ou brownies euh, pour mu ñor vingt cinq minutes daal moo gën a wóor mais tout le temps da ngay jël paaka wala nga jël sa euh, pic brochette daal di jam soo ko génnee paaka bi set nga xam ni say brownies ñor na soo ko génnee paaka bi am tuuti lu ci taq nga xam ni dese na la ay cinq voire 10 minutes donc lépp dañ koy testi fii ci Alphie Cuisine pour joxe astuce yi nga xamante ni euh, sama célibataire yeeg sama étudiant yi euh, dañ koy soxla donc mi ngi ko léegi ñor na euh, papier sulfurisé bi lim ñuy permettre mooy nga am démoulage facile ñu enlever daal di découper brownies c'est idéal pour goûter xale yi Euh, maman yi di dem bureau papa yi di dem bureau euh, goûter goute anniversaire mariage donc dafa nekk ay desserts yu pratique yoo xamante ni soo ci defaree lu bëri di nga ko garder au moins deux semaines ci benn endroit boo xamante ni dafay wow nga tëj ko euh, conserver ko bu baax donc mi ngoog dañ koy déguster ak tuuti crème chantilly daal di dégg jàmm sama gars yi comme nii rek lay demee. bu leen fàtte di abonné wu euh, toujours di like vidéo yi et di leen partager pour ceux qui suivent sur Instagram euh, YouTube Facebook euh, Snap ak WhatsApp jaajëfal naa leen on se donne rendez très bientôt goûter dimanche lay doon et à la prochaine merci beaucoup sama gars yi